malakani dunya wa ukhra sama du indahu lixtaaruhu muhammadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokk yi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew noo ngi leen di nuyu di leen ziar boo leen gisee jataay bii nag ñu xam ne ci ndigalutul Serigne Sidi Mbakke xalifa Cheikh Abdoul Ahad Mbakke ci teewaayu sëñ Mouhamadul Mamoun ibnu Cheikh Abdoul Ahad ci bis bi nga xam ne dañu koy dëgmal di ko fàttalikoo kenn ci njabootu cheikhul xadim muy cheikh Abdoul Ahad Mbacké xadimu rasul ñu teew fii tey ci kër sëñ Mouhamadul Mamoun ànd ak njaboot gi euh, sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne moo ci mag waaye ñu feggoog sëriñ Murtada ak sëriñ Sidi euh, sëriñ bi nag di yëgal bis bi mboole mbokk yi ak ñëpp tàmbalee ko ci waa kër sëriñ Modou Xari Mbacké ci njiite sëriñ Ahama Mbacké di leen ko yëgal di ko yëgal sëriñ Maxtaar moom sëriñ Abdoulahi borom dër bi waaye di ko yëgal mboolem waa saam goog sëriñ Abdou Latif ci njiital sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Abdou Latif di ko yëgal waa saam sëriñ Baara Xureja sëriñ Baaram sëriñ Cheikh ak mbooleem njaboot sëriñ Baara Xureja gi yëpp di ko yëgal waa Touba ak mboolem waa Touba Kan yëpp di ko yëgal bokki taalibe yëpp ñi féete Ndakaaru sëriñ Aliou Sow ak ñi mu àndal ak di ko yëgal waa Yaraax taalibe yi féete foofu ci njiital sëriñ Bouré Diouf ak ñi mu àndal ñëpp sëriñ Sidi waaye di ko yëgal waa daaira ñàkku rab ci njiita seen Lamine kamara ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal daayira bi nekk foofu ci ñàkku rab fàttewul sëriñ Ibrahima Ndiaye mi ngi ko koy yëgal ak soxnaam ak mboolem ñi nekkal foofu ak sëriñ Balla Sall di ko yëgal mboolem daayira yëpp daayira yi soppe yi ak daayira yi nga xam ne it ñoo aju ci kër gi bu dee soppe ci njiital soxna Fatim Silla fii ci Touba Sam ak soxna Asta Gaye ak soxna Dior Diaw ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal ak daayira yi nga xam ne it ñoo aju ci kër gi te kenn ku ci nekk xam lan moo ci dib cëram di ko yëgal alaaji Caam nekk foofee ca Kaffrine di ko yëgal Ahmadou Wërsëg Cuun moom it bàyyiwul kenn sëriñ bi nee na bàyyiwul fenn mi ngi ko yëgal ñëpp bis bi incha allahu mi ngi war a doon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru wolof war doon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar te weeru tubaab fii ci kër sëriñ Modou Mamoun ci Madiana 30 bi nga xam ne moo dox diggante Saam ak Madiana kon jotaay baa ngi ne incha allah ñu fa yéene ci ànd nag ak kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu feggool kàddu gi danañ ko jox sëñ Amdi sëñ Amdi Mbuub mu woote waaye Serigne Niang wax ci turu taalibe yi sëñ Njamba Ngom wax ci wàllu organisation bi sëñ Badiane moom it wax ci sëñ mbay Badiane wax ci kàddu sëñ Mouhamadul Mamoun sëriñ bi ñaanal bokk yi. kon bokki jullit yi bokki taalibe yi su nga gisee jotaay bu toll nii sëñ bi toogee nii ànd ko feggoo ko ak bokki taalibe yëpp ah la xewoon mooy xewaat rek loolay fàttali muy màggalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké gi nga xam ne kenn du ko fàtte. xanaa dañ koy fàttaliwaat waaye kenn du ko mënu ko ko fàtte ci kenn du ko fàtte moom nag da ci am taxawaayu am solo yoo xam ne da ko ci yàgg taxawee ba nga xamee ne tam lañ màggal gi ba tey ci kilifteefu kilifaam boobee ba léegi waxtu wu da ko feddali di fàttali mbooloo mi magal gi di ko fàttali bokki taalib yi yëpp fu waay mën na nekk ci réew mi ak bitim réew na nga xam sëñ Modou Mamoune mi ngi lay fàttali màggalu Cheikh Abdou Lahad Mbacké boo dee xarit mbaa ngay wëlëree mbaa ngay mbokk moo ak noo ko mën a jegee ci mbokk ak noo ko mën a soree woona la woona xarit yi woona taalib yi boo ko woona ñëpp rawatina nag fii nga xam ne fi dëkk di diggante saam ak madiyaana ak li ko wër lépp moom fi nekk xamal ni si mut ma maamun tàll na loxo di la woo di woo na Sénégal gépp ndax bis la bis la bis la boo xam ne bii mooy bisam ku ne nag day fonk bisam moom nag bokk bokkoon na ci bis bi nga xam ne moom moom la gën a fonk ci lépp lu ko yàlla may ndax ki ko booleeg Seexul Xaddim muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké kon bis bi ah nii rek la mën a demee mu ngi ciy wooy ñëpp daal di ñaan nag ñëpp ñëw ci jàmm fekk fi jàmm nekk fekk ñoom ci jàmm delluwaat ci jàmm te ñëpp am ngërëmu Sëñ Abdou Lahad Mbacké man maa ngi wootee na moom ci tur sëñ Mamoun Mbacké ci ñu ma ko bokkal fépp fu waay ne maa ngi lay fàttali màggalu sëñ Abdou Lahad Mbacke gi ñi ma bokkal sëñ Mamoun Mbacke ndax ñun moom rek la ñam moom rek lañ gëm tamit waa Saam daayira yi nekk Saam ak daayira bi nekk Daaru Xudus ak daayira yi nekk Xayra ak ñiy soppee ñëpp kenn ku ci ne xam ma fu ci waay ne rek su déggee sama kàddu na xam ni ñoo ngi ko koy fàttali comme ni ko sëñ Amdi Mbuub waxee rek kenn fàttalu ko waaye nag lii day sunu baax kenn ku gën a jege gën a yey fu fi waaye ne daal ñoo ngi la koy fàttali tey ñaan ci ngir yàlla ak jëm seen lépp lu ci waay yéene ci noo ko bëggee yal na la ko yàlla man loo ak jëm seen laat mbàkke te sëñ bi yàgg fi lool nag te fekke ko te tal ko. nañ ko daan baaxoo def muy mbooleem li aju ci kër sëriñ bi ah suñu kàddu nag ñoo ngi koy jëmale ci wàllu liggéey bi mu di organisation bi wàllu liggéey bi nga xamante ni bisu Cheikh Abdou Lahad alxuraan ak xasida ak bernde. ah buñ àggee ca bis ba nag eh, buñ nee suba la màggal gi buñ fi mënee daje ah, li war ci bis bi mu di ci wàllu programme yi base bi ak wàllu dajale matériel bi ñu def ko suñ àggee ca bis ba kenn ku ci nekk nga teel a xëy ah niñ ko daan defee ñi seqaleen liggéey bi muy mbooleem daayira yi aju ci kër gi lu ko mel ni sëñ Aliou Thiam ak ñi mu àndal ak mbooleem njaboot gi aju ci moom ñu teel a ñëw ah teel a commencé liggéey bi ah suñu xëyee Ah, alxuraan ji ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ca waañu ñu góor góorlu ci teele ko ah te kenn ku ci nekk nga ubbi sab dënn yaatal ko ah koo gis itam nga fas yéene na nga jariñoo mu jariñoo noonu ñu ànd boole yi liggéeyal te xam ni borom bis bi ñuy liggéeykat am na pay te yaakaar naa ni buñ ko delloo njukkalam daan ci góor góorgóorlu bu baax li commencé ci bernde yi kenn ku ci nekk itam boo dikkee nga jàppandi la la fa indi mooy liggéey lépp lu waaye di yëngu te mu bokk ci liggéey bi nga jàpp ne ci liggéey bi la tey déglu ndigal te xam ni lanu fa indi rek ñun ñëpp moo di defar ñu boole xol yi fas yéene lépp jag rek te bu lépp jage yaakaar naa ni suñ lépp dina jag ndax suñ njariñ moo ci nekk kon bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn mbooleem ku ñu daan seqal liggéey bi rek wala nga di xarit wala nga di soppe woon nañ la ci bis boobu ah ñu fas yéene ko liggéeyal ngir Cheikh Abdou Lahad di ñaanal mbooleem ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw suñu borom indi leen ci jàmm te delloo leen ci jàmm kilifa giñ fi fekk itam mu di Serigne Moudou Mamoud ak mbooleem njabootam suñu boroom yàggal ko fi may ko wér ñu yàgg ko fee fekk mu yàgg a taxawee bis bi. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki julliti. ñoo ngi leen di yëgal màggal gi ci ci kàddu sëñ Moudou Mamoun Mbacke moom sëñ Abdou Lahad Mbacke nee na nag mi ngi koy fàttali par euh, sous préfet ndaam ak soxna moomi Kebe ak mboolem képp koo xam si rek yi seqoon ngeen ko mi ngi lay sant di la gërëm ca la weesu te di la ko yëgalaat di la ko fàttaliwaat bëgg nag ñu teewee ko nañ ko daan teewee jàppe ko nañ ko daan jàppe bayul kenn bayul fenn bayul ñenn kon ñoo ngi leen di woo rek ci bis bis bis bis bu àggee nañ ko daan defee rek ñu def ko ni lu ko suñu njort ñoo ngi ñaanal nag mbokki taalibe yi mbokki jullit ak sëriñ bi ak njabootam suñ borom yàggal leen fi ñu ko fee defee ci barkeb sëñ Abdou Lahad Mbacké wasalaamaaleykum eh, kon mbokk yi woote baa ngi noonu incha allahu alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tubaab war doon ñaar fukki fan ñett ci weeru kor yi fii ci Madiana ci kër sëriñ Mouhamadul Mamoun ni ñu ko waxee sëriñ bi kon mi ngi fàttaliwaat ñëpp bés bi waaye di gën a soññi daara yi kaamil yi ci alxuraan ji ak durus xasaayid yi di ñaan yàlla képp koo xam ne teew nga fi loo fi fas yéene ko yéene ju sell yàlla suñu borom defal la ko sant bokk yi ci la weesu lépp di leen gërëmit ci li nga xam ne moom lañ dëgmal di wax ne mi ngi ñaan Cheikh Abdoul Ahad Mbacké lépp lu ci waay fas yàlla na la ko yàlla defal kon wis baa ngi noonu incha allah dañu koy xëyee nag bu soobee yàlla bu ñu xëyee suba dañuy tàmbali 8 heures incha allahu ba waxtu ngoon lépp maase bernde ak jàng alxuraan ak jàng xasida sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax ku fi ñëwit ñu ànd ak teey ak dal xam ne lu fa waay sàkku te ko ak teeli bi la nga ci jot na ko bëggee ubbil na ñëpp bunt yi woo na ñëpp njariñ rek la bëgg ñëpp am ko yàlla na ko yàlla defal képp ku fi teew ak ko amoon teew wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa indahu lixtaaruhu muhammadu